asalaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxlewu déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pure huile végétale sans cholestérol ak si di binta ah mbokku yow mi jeeg yow mi jongama sa biir kër dama nii soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile binta moo baax loolu si waañ wi mooy tax mu am appétit waaye huile bi nag mbokk moo baax si wér-gu-yaram huile binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ngay togg Nivea ak bépp pat buy utiliser dawlin moo ko tax a jóg yéen ñi am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si ngeen waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala sax kër gi saa su nekk nee naa la huile Binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wér-gu-yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin Binta pur loolu sell te set ak safe bu ngeen ci bëgg mbokk yi mën ngeen gaaw woote si 77 135 13 13 huile la bonne cuisine notre asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi Rafah TV tey nag dañoo indi seen émission jàmbaar ca waar wa jàmbaar ca waar wa nag bu ñu ko waxee di ci ànd ak gaynde di ci ànd ak jàmbaar di ci ànd ak ndaanaan boo xam ne tey dañ koo fekk si fii ci liggéeyukaayam fas yéene ci ànd ak moom bëgg li muy liggéey nag mu di ci suturloo di ci faj soxlaam kenn xamalu ko dara mu doon nag uh, koo xam ne nag uh, handicapé la kon nag tey ma ànd ak sama caméraman rek daal di koy seeti ci biir kon nag mbokk téléspectateurs yi ñu ngi nuyu ñëpp di ñëw nag tey ci suñu invité suñu invité du jour bi muy jàmbaar di gaynde di naan koo xam ne ku ne mën naa jël exemple ci moom kon nag sëñ bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk mi ñu ñu ngi leen nuyu bu baax di la laaj tur bi naka la. Euh, man Abdou Fatah Mbaye laa tudd. sëriñ Abdou Fatah tey ñu fekk la fii nga xam ne moo ci sa barab bi nga xam ne ci ngay dóoree waar naka nga fii dundee. waaw fii de moom maa ngi sant bu baax ñoo ngi liggéey euh, ñoo ngi sant daal moom dund bi moom doonu loo xam te metti na wala dara parce que waar la rek dama yëg ni que euh, liggéey moom liggéey la amut handicapé amut ku doon handicapé moom foofu laa ko teg rek moo tax ma ñëw di liggéey mais amut benn benn jafe-jafe boo xam ne ñoo dund moom amul sa waajur say kilifa fii la ñu dëkk ci Touba wala ñoom fan la ñu cosaanoo tamit bëggoon nañ waaw ñoom de xam naa ni Kajoor lañ cosaanoo man nag moom fii laa cosaano mais ñoom Kajoor lañ cosaanoo. ah ñoom yéen waa Kajoor Kajoor ngeen léegi daal da a ñëw dëkk si fii nga xam ne mooy Touba Mbacké léegi nag yow bi nga fi ñëwee nag lan moo la dugal ci sa liggéey bi. waaw liggéey bi daa doon bëgg-bëgg euh, rek ak it doon liggéey moo xalaat ni que war na ma ko war a mën liggéey daa ci dugg. wàllu matériel électronique bi wala xeeti dolli yeeg photocopie yeeg euh, yu jëm si wàll yooyu ma xalaat ni que rek euh, handicap mën na koy liggéey ku doon handicap bi mën na koy liggéey moo ma jël ko ma def ko sama métier quoi oui. Euh, sa handicapé nga xam ne moom moo la dal da wala da koo judduwaale lu yàlla teg waaw moom nag xaw dama koy judduwaale wala lu ma dab la mais màgg naa xàmmee fekk ko sama jëm. Ah, laneen loolu moom lu laneen lu ñuy laajaat lay doon suñuy kilifa waaye man eh, dafa doon loo xam te si ni nekk nañ si man sa yëguma ko parce que amatu metti sa it eh, fekk tudd nañ ko fekk tudd ko du ma yëg ne man handicapé la dañ koy tuddu ma daf kaa yëg moom moo tax it eh, bëri na yow si xam si le mosuma ko si doon laaj ndaxte moo xam diira samay waajur lañu ñu warloo man yëpp def nañ ko muy dugal daara arfaan génn fa ñëw si liggéey bi affaire yi quoi moo tax euh, doonut handicapé boo xam ci ne moom yëg naa ni que handicapé la ndaxte euh, maa ngi def li mu bëgg a def daal amul loo xam ci ne maa ngi maa ngi say dérange ci benn côté way way ñuy gis sa mborom handicapé yu bari ñoom dañuy nekk ci mbedd mi di yelwaan di def yu ni mel yow nag ñu gis la nga nekk ci sa barab bi nga xam ne ci ngay dóor waar di utloo suturloo nan nan nga ko dundee ci biir barab bii nan nga def ba tàmbali waaw barab bi moom ni ma def ba tàmbale ko maanaam mooy ginnaaw bi ma jógee ci daara ji def ay yenn si ay formation si euh, laa demee si benn jëwriñ bu naa sëñ Mor moo ma jàngal liggéey bi euh, ma daal di tàmbali yëf yi ñi nga xam te si nag moom doon nañ samay mbokk handicapé nekk de yàlwaan wala yu mel noonu it euh, di la ñaanal ñi nga xam te si ne bëgg nañoo am métier ñu dem ñu jëmi ca rek parce que métier moom amul handicapé amul koo xam te si ne du handicapé waaye moom métier moom métier la rek handicapé beeg ku doon handicapé bi yëpp daa doon wàllu jom quoi maanaam nga xalaat ne kat lii war na ka war a mën a defi da teg fële sa handicapé nga dem defi loolu parce que dafa doon loo xam ci la lu suñu borom di tegale rek lépp lu la teg bu ko neexoon teg ko lu gën a metti loolu quoi ak handicapé boo mën di am si àdduna rek am na ku la gën a metti lee kon lii nga xam si la man mooy sama handicapé muy ñàkk a dox loolu man defuma ko handicapé si man handicapé la nag si ñiy dox waaye man foo xam te kii dox ma ngi fay dem rek man man naa fay dem lool xam ko ngi man man naa kaa jëf amul lenn lu ma déranger ci sama dund moo tax ma jàpp ne man yóbbu ma yógoo ne nga kon nag nii nga xam ne moom moo la dal nga xam ne muy handicapé bi nan nga koy dundee ci biir kër gi nga xam ne mooy sa dëkkuwaay. waaw sama dëkkuwaay moom bien ñoom moom macha allah ñoom la war yëpp ñoo ngi koy def waaw ñoom moom mooy loolu samay xarit lañ samay lépp amul lenn loo xam ne seetaan nañu ma ca waaw te it Baye Fall la man mooy loolu moom Baye Fall Serigne Fallou la kon moom amul lenn métti doon danga ko yëg wala ak yaram soxla soxlawu ma sax souvent ku mooy yaram wala yooyu waaw damay bëgg moom mooy loolu. macha allah mu ne Baye Fall Serigne Fallou la waaye Baye Fall Serigne Fallou lu ñu lay wax ne booy xëy si fii nan ci mbaa doo am yenn jafe-jafe ci yoon bi. ah am yenn jafe-jafe ndaxte man sportif la damay daw ba ba mooy dellu comme waaw. loolu la quoi moo tax du ma si am yenn jafe-jafe soxla mu oto saa yu ma doon dem fa sori damay jël oto damay làmb sama poos jël sama oto bu dee diggante fii ak kër ga nag moom moo loolu bu ko gënoon a xàccee dama koy daw kon loolu moom amu si benn jafe-jafe. am na solo kon dégg ngeen suñu daanaan bi suñu jàmbaar jii lii muy wax waaye itam ñuy wax ni fan ak fan nga jaar ba tey nga taxawal barab bu mel ni waaw fan ak fan laa jaar maanaam euh, ginnaaw ba ma xàmmee samay waajur def la war muy dugal daara génn si daara ji. Euh, euh, yënguwaay yi nga xam jot naa ko yëngu moom jaay laa jot a def ginnaaw boo jógee ci jaay bi nag si la soi gis ne kat wàllum électronique moom doon na sama bëgg-bëgg dañu ma booleeg benn mbokkum taalibe bu na suñ moor yor benn imprimerie yi moomu doon jàngal métier bi ba mu si jógee si laa daal di nekkaat mooy li ngeen ma fekk may def waaw loolu mooy sama jaar-jaar dugg si jàng arfaan jàng tuuti si nasaraan jóge fa dugg si liggéey bi. am na solo kon nag dégg ngeen suñu invité du jour nee na moom jaar na ci arxuraan jaar na fu ne doog a ñëw fii nga xam ne fi la taxawal barab bu mel nii kon nag ñuy laaj ba tey ci barab bii nga xam ne ndax am nga ko la fiy jàppale wala déet. waaw bu liggéey bi xawee tënk tuuti muy si euh, am lool damay am ñu may woo ñoo xam te ne ñenn si ñoom maa leen jàngal métier mi ñoom ñoo ngi ci seen ay bërëb waaye moo saa yi moo xam soxla naa leen day ñëw jàppale ma bu noppee delluwaat waaye pour l'instant man rek maa fi nekk maa fi nekk saa yu liggéey bi xawee euh, takk lool nag lu ma ne événement am na sama ñaari tur tànk yoo xam ne dama leen di woo bu ñëwee ànd ak man liggéey bi saa yu leen nekkoon. waaw soxna si mi ngi fi wala amagoo soxna wala itam da nekk gum ci place bi rek. waaw soxna si mu ngi bëgg a ñëw ah yegg seegul. non est-ce ah, na yegg seeg jàmm waaye ñuy wax ne fii nga xam ne mooy barab bi nga xam ne moom ngay dooree waar di ci suturloo yan anam lay faral di dox. côté copie côté jaay bi wala côté dool yi euh, et cetera yéen yaa ma gën a xam daal lu ci nekk rek am na loo xam ne moo gën a dox ci say activités yoo xam ne war nga cee mën a faj sa soxla bu baax a baax. Euh, tout le temps moo ngi dox si benn copie ñaari copie dollu nag moom lu ma ni période màggal yi la ëpp lu ma ni màggal Touba Kazu Rajab ndaje murid yi daal bu jub dolli xëy si day moom mbokki taalibe dañ ko fi yittoo bu dee jaay moom comme jaay rek moom tey mu dox suba mooy loolu jaay loolu ñoo ànd quoi. am na solo ba tey tamit ñuy waxaat rek lan ngay dénk sa mbokk yi nga xam ne ñooy handicapé yi ñoom tamit ñu faral di leen gis ñu bari ñoo xam ne dañuy yalwaan ak i def li ni mel yow ñu la tey nga nekk ci barab bi nga xam ne tey yaa ngi fi daan sa doole di ci suturloo di utloo yóbbu ci sa ci sa njaboot yaa ni tàmbale bay ñaan soxna si si yàlla na yegg seeg jàmm te lépp foo fii rek nga ko yaakaaree ndax gisoo kenn koo xam ne jàppale na la kon nag ba tey ñoom ñi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel ANACAM lan nga leen di dénk. waaw sama mbokki ANACAM yi di la ñaanal tawféex ak taysiir sayit uh, ñi nga xam te si nii war na leen mën a jàppale ñoom xam nañ seen bopp bu baax ñoom ñu jàppale leen parce que bëri na handicapé yoo xam ne ñoo ngi yàlwaan mais la def doonu lu leen gënal buñ sañoon di yëngu ñoo ñi nga xam te ne bu buñ sañoon doon yëngu ñi nga xam ñoo ngi leen di dégg sa war leen a jàppale ñoom nan leen jàppale bu baax parce que képp ku mën doon ku si ne am nga koo tane képp ku tane sa morom rek dimbali ko sa lan ko tane loolu rek laa ci gis quoi di jàppalante di yenente jàmm bu baax a baax. kon nag ñuy jàppalante tey yenente jàmm bu baax a baax ndax ña nga xam ne ñu ngi toog ci jumaa ji amuñu lu leen gënal ndax bu ñu sañoon tey dóor waar doon jàmbaar doon gaynde mel ne suñu suñu invité bii kon nag euh, ñu lay wax rek ba tey ndax yow euh, amoo benn jafe-jafe ci sa euh, liggéeyukaay wala déet. waaw amaguma ko ci nag pour l'instant ndaxte bu ma beroo taxu koy yàgg lool waaw amaguma ko ci nag moom oui. alhamdulilah kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di am mbégte ak contentement tey ci suñu bis bi wax dëgg yàlla ndax bu boo doonee handicapé it suñu borom handicapé wut xel mi xel maa ngi màcc macha allah kon ñu ngi gis ne jàmbaar nga dóorkati waar nga ku am jom nga itam ndax bu la neexoon def ne say morom ndax nit ki nee nañ ko bëgg wut am kon nag ba li mu bëgg wut na ko te ba mu ko wutee rek am na ko kon yàlla na yàlla def jàmm ci barkeb Serigne Fallou kon ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw di leen sant bu baax euh, waa Rafah TV ñoom samay xarit la ndaxte waa kër Serigne Fallou la sama waa kër Serigne la moo tax ñoom dama bokk ci biir daara ji quoi waaw di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex rek. di kontaan si yéen di rafetlu tamit lii wax dëgg lépp taw feexe rek. kon jërëjëf mbokk téléspectateurs yi Rafah TV tey nag kii ngi lañ la indiloon ki nga xam ne mooy suñu invité di jàmbaar di gaynde macha allah gis ngeen ko nii nga xam ne nag dóor waar rek la xam gis ngeen lii nga xam ne moom la wax si mbokki handicapé mi kon yéen ñëpp na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax ndax ku bëgg rek boo wutee am bàyyi leen xel ne indi handicapé ci askan wi la bokk ngeen wuti lu ngeen liggéey daan doole ndaxte am na ñoo xam ne nag ñu ngi toog waaye li ñu toog gënalu leen kon nag euh, képp koo xam ne rek yor nga barab bu mel ni incha allah dinañ ci ànd ak waa Rafa ñëw fekk si la ba foofu daal di waxtaan ak yow ci li nga xam ne moom ngay liggéey kon nag ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ba semaine prochaine incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum soxna si dama ni baa jaaxlewu déedéet jaaxle amatul fenn ginnaaw nag bi seen pure huile végétale sans cholestérol ak si di binta ah mbokku yow mi jeeg yow mi jongama sa biir kër dama nii soo bëggi poñe sa jëkkër secret baa ngi nii de kër gi neex loolu demal nag wuti huile binta moo baax loolu si waañ wi mooy tax mu am appétit waaye huile bii nag mbokk moo baax si wér-gu-yaram huile binta mii lépp lañ ko mën toggi yàlla boo am sa ginaar boo bëggee mu ñor loolu nag saf utiliser huile binta waaye nag ceeb moom moo ko tax a jóg da ngay togg ba mu togg boo bëggee ay beñe ay fataya ak bépp pat buy dawlin moo ko tax a jóg yéen ñi am xew yu mag yi bu ngeen si bëggee quantité ak si waaye nag bu ngeen yoree restaurant wala saa su nekk nee naa la huile Binta mooy sa compagne bi gën a gaaw ndax da ngay togg mu saf mu neex ñëpp suur waaye nag boole kook nag tamit day sàmm seen wér-gu-yaram dama ni mbokk mi jaaxle jeex na bi seen dawlin Binta pur loolu sell te set ak seef bu ngeen ci bëgg mbokk yi ma ngeen gaaw woote si 77 135 13 13 huile Binta la bon cuisine notre credo